mu ñëwaat na xet Pawlish fa la cooli bari na alaa gi sami cuun bi wax ci bi ndax lan bu nu nee xel kuy doomu aadama di a mooy tax ñu wér di nga ba rek yaakaar naa ne sa xel mooy sax yëpp waaye ku dem ba mën a toog sa ñàkk xel la fi bàyyi lii wuute léegi ñu am xel ak ñu amul xel ku am xel bu ñëwee toog ci mbooloo teg lañ tànkam ñu déglu ko bàyyi ko mu wax ki amul xel bu yëg seen ci mbooloo duru ko mayu fii sa place taxawal ne kon bi waa ñu ñëwee ci ñetteelu album bi ndax xel ci la carte gi leer ci la wax ci jeex tàkk waaye ma yaakaar na wéykat bi foofu na apéro laa ilaha illallah ma dellu itali tuuti nag dellu Espagne baal waaw nu baal tuuti nag tubaarkàlla ça fait du bien ñu naa Péro mu indi lu yees bekk loo xam ne ba mu ko réew mi xam na lu ne beneen style musique mi ngi ci moom budul mbalax pur et dur waaye beneen facette wayin mi ngi ci moom budul wayin wii nga xam ne moom la ñu miin suñu réew ñu doxal ak moom ci apéro yaakaar naa apéro fa lay yem waaye na maa ngi dem liggéeyi maa ngi ñëwaat ñu doon di ko xaar muy loolu symphonie allahu akbar symphonie Séfodi mi nga xam ne ba fii may wax ak yow sàppeegul day boroomu jom ndax treize ans de carrière ñaari at di jot album jom a koy def dama ko dawaali mu ne ma naam ma ne ko li sa bàyyi daal liggéey ci 40 moom nga liggéey ci 10 ans tey carrière bi def 13 ans nga réalisé sept album dama ne boo xoolee sa bàyyi bu ñu defee 30 ans de carrière nañu am sept album maa ko wax man nga réalisé juróom-ñaari album ci fukkaat ak ñett yaa di góor yaay boromu jom yaa ko liggéey yaa am ful la yaa gëm sa bopp ñu jàpp ne Symphony fa la liggéey bi yem wax li na maa ngi dem liggéey yi maa ngi ñëwaat ñu toog di ko xaar muy nu ñu xippil xool waa léegi doomu aadama bu nekkee ca seenewul seetlu kan lay dund xippil xool nga ne maa ngi xippi waaye lan laay xool ñu ne xoolal réew mi xoolal jikko yi xoolal xalaat xoolal li nga xam ne moo war ci mu ni jëm way wi jënd wër àddina tas ci réew mi di yeete nit ñi di ko dégg di ci jariñoo ñu jàpp ne foofu la waaye sekk di am mu ne tey nag toog ci wetam bi rakkam ñu koy wax Mohamed Seck chef d'orchestre mi ngi toog ci nday jooram ñu koy wax Papis Ndiaye waaye dama woo mbooloo mi woo presse bi dama bëgg waxtaan ak ñu ne ko lay waxtaan ak ñun mu ne état d'esprit mbokk yi fi may wàccee sama kàddu lan mooy état d'esprit mbokk yi état d'esprit mooy moom moom mooy mooy état de dépassement état de prise mooy ouverture d'esprit ki la góob ci àddina moo la raw ci àddina bëgg ci gan na xubaat ci gar ga ci moom ngay jaar la nga bokk ak la ñu la boole ak la nga doonul dara du benn ndax naa ko moo ko ñoo ko dana bokk nu nu waaye bokk nu fulu lépp ñëpp lu ne ku mooy état d'esprit dama coobi daal yi ca tëdd ca xam ne sa wàllu wéy na ci réew mi kon mbokk yaakaar naa ne tey album tey bii ngeen waaj dégg tey li ci waale nar a ëmb bari na lool waaye lim ci nar a ëmb it rëy na lool mu nekk fukki titre ak juróom état d'esprit Papis Ndiaye chef d'orchestre Mouhamed Seck directeur Faramareen musique ak waa li nga xam ne moo war a jotaay bi tey dana leeral fukki titre ak juróom yi lu ko ëmb kon mbokk nii waxtaan bi doole am na solo fii nu ko jàpp fii la na naan rek dal te bàyyi li nga xam ne mooy bureau bi ñu installé wu ñëwante bi journaliste te ñu tàbbi ci bi waaye ma fàttali leen ni du conférence de presse pas de question point de presse la waa lay wax ak ñi ma àndal bu noppee yooyu mbooloo mi ñëpp jub may dox kàddu gi suma nijaay suma xarit alaaji Youssou Dieng mu baax mi Youssou Dieng mi nga xam ne boo ko séenee muy ñëw bu laajte fu mu ci liy doxal ci liy baaxal ci liy jëmale kanam ci lu yokk liggéeyu Faramareen luy si ak Wally Ballago Seck. salaamaaleykum presse sénégalaise maa ngi nuyu ñëpp ku ci nekk sa tur ak sa sant euh, di leen wax merci ci teewaay bi jërë ngeen jëf beneen bi ci topp may nuyu. sama yaay Ndey Fatou Diagne di borom kër gi jërëjëf ci yaatal bi Diouf di nuyu képp ku ñuy seetaan ak foo mën ne rek maa ngi lay jox la ko di jox sama jumaale maa ngi leen di présenté waat suñu chef d'orchestre xam naa ne ko sax waaye am na ñoo xamante ni war nañ ko xam amaana teel a ñu doog a dugg ci chaîne bi mi ngi tudd Papis Lay di chef d'orchestre Santane ma fekk ko fii moo nekk sama papa ba man ñi ma tàmbalee lu ma way généralement moom la ku ñëw rek dara mais lu waay di def sax moom la kii nag sama la Mouhamed Seck di Sey di directeur Paramaré dama koy tooñ naan ko imam que moom mooy imamu kër gi jàkka ja la xam gale bi jàkka ja gale bi donc yàlla dogal ma nekk ci aar dem ba mu màgg jàngi ñëw mu ne ko kay toog suma wet muy directeur Faramare muy Seydina Mohamed Seck donc euh, damay bàyyi rek papis mu daal moom tamit nuyu ok boobu Omaro ak Youssou di wax ni amul kese alors euh, je pense que su fekkee ñoom dinañ mën a jaar foo xamante ni di ngeen comprendre lépp di ngeen ko bëggee su amee nag ñu burug lu xam naa ne yëfu géwél lay doon dina am ñu burug lu ma bàyyi leen nopp gauche tontu leen nopp da foofu toj signé par le aspect journalisme ak téye micro téye caméra loolu laa leen di wooyee les premiers partenaires parce que nous sommes en musique nous sommes te bu ñu paree lu ñu mën a xalaat baax na baax na neex na neexul dem naa yéene suñu premier client parce que c'est la presse mais yéen ay def comme ni ngeen def tey jii mais aussi lieu bu symbolique lieu bu fort d'émotion waaw un lieu symbolique et fort d'émotion j'ose dire euh, ndax l'histoire elle se par la fille et coutume quand je la fille et coutume damay commencer sama jëmmu bi fii euh, dafa fort fort comme ni ko waaj waxee euh, loolu cër yi boole la mais au delà de ça damay fàttali man il y a 22 ans si kër gii fii fii ñu toog nii. il a démarré mon aventure musicale avec euh, euh, suñu mag bi baax bi John euh, Balla bi Seck yàlla na ko yàlla njëriñ nga sax si moment boo leen bañ ko fàtte si ñaan c'est très important alors waaye li ñu ngi génne ak comme comme Maodo laa ci premier point de presse bi bi mu def fii la woon. bébé sa bopp la. bébé ñu dund ba suñu kilifa boobu woon ñu ginnaaw. je crois bu ñu génnee il est essentiel il est essentiel ñu ñu dëggal opportunité bi nekk si li ñu def. dem si hôtel wala mu dem fi muy defee point de presse mm-hmm. mais euh, l'acte symbolique de revenir à sa base c'est pour définir la continuité je vais pas euh, euh, du ma du ma yàgg si côté émotionnel présence bi. damay développer directement sur les figures yi muy lan état d'esprit mu nekk un euh, album très riche à mon avis boo xam ne euh, du ma ko défendre du ma ko défendre je crois yéen ñi presque yéen a koy défendre boo leen ko déglu parce que euh, defar musique bind texte am chanteur bu mel ni moom comme on dit yomb na trop c'est très facile problème boobu mooy si li ñu liggéey bu génnee ban appréhension ban orientation la ko nit ñi jot loolu nekkoon primeur li ñu doon euh, li ñu doon wut état d'esprit c'est un un mot fort ay tolluwaay la yoo xam ne nii dafa jéggi ci doomu aadama tantôt ci li mu nekk pour réew bi mu doon bi mu jógee tantôt par rapport diggante ak boromam tantôt par rapport nit ñi muy seqal chaque jour donc mu nekk benn boole boo xam ne Euh, moom nag ay inspiration dañ ma jaaxal moom ay inspiration dañ ma jaaxal parce que orientation bi muy jox xalaatam des fois ba nga dee ba nga tas mais euh, loolu euh, dafa parce que ne daf ko hérité si son retraité père bi mu tegee état d'esprit dama ne ko le thème il est hyper sérieux il est trop sérieux te jamono ji booy def album ci suñu avis personnel par rapport ak ni dëkk bi di doxee par rapport ak ñi fans yi par rapport ak ñi sénégalais partout à travers le monde li ñuy jëriñoo musique da nga war a laal tous les domaines sensibles l'émotion l'importance des textes la détente la distraction c'est très important kenn mënu ko jëlee si musique kenn mënu ko jëlee si musique donc dans une proposition léegi gis nañ que sur un album la latitude parler wax problème yi ngeen bind ci biir album ça c'est très important un artiste engagement dañ koy xool rek si pourcentage mais c'est forcé par force da ngay engagé am loo xam ne